kilomètre lu matul weer daje dajale nañ quatre-vingt mille parrain biñ xoolee liggéey guddeeg bëccëg déposé ko amuñ benn kenn ku nekkoon ci suñ équipe di liggéey ko xamné ne dañ né professionnel nga ci politique xana quelque rek xeyna ku melné Babacar Gueye mi ah ñu def nak déposé biñ déposé yalla def na nangu nañ ko félicité nañ ñu gis nañ ni suñ dépôt dafa baax parce que 15 quinzième lañ won ci rang bi waye ñoo mujj jël 2 deuxième parce que ñi ci dess ñepp ñëwuñ ñun ñew nañ heure déposé biñ informatique bi duggee nag gis nañ ci ne dañu ne autre motif autre motif yooyu nag xamaguñ ko léegi nag bis bu ñu ko xamee ñun am nañ capacité vérifier ko bu fekkee vérifier nañ ko yàlla def na ñun ñu man koo ñu nangu ko te amul recours dañ koy nangu duñ fi nekk di sonal suñ bopp suñ xamee ne nag dafa am loo xam ne dafa am erreur wala dañ ko xamul wala dañ ñoo bëgg a jaay leneen ñu topp ko ba fu ko du ci yoon discuter décider rek ñu am waaye li société civile demandé maa ngi ñaan état bi mu nangu ko mooy ñi nga xam ne déposé nañ te ñu recalé leen ñëpp ñu mayaat leen ñu déposé incha allah loolu bu amee rek ñun danañ dem